Bismillahirrahmanirrahim. barke borom tuba, wala falu màggal tuuba 18 safar tey ma dellu buur sant bamba dooru way fi bis bu sahruna safar tey ma dellu buur sant bamba dooru way fi sahruna safar tey ma Sante Bamba door bis buwur, wóor sahruna safar jëm ca jon na daal jublu war na daal ko waaju hal, sahruna safar moo di gi wer moo ka feesi leer raw na wépp weer sahruna safar moo di weeru fi dindi jox nu tedd ngaam sahruna safar moo di weeru daam moo fi dindi jaam jox nu tedd ngaam sahruna safar nañ ko waaja waaj waaj ji ko waaj luñ ci jëf du xaaj sahruna safar nañ ca faxta jëm weer waa ak bisam def ja ame ci am shahruna safaram bisum mbégte la bisu yokku la bis bu yéeme la fi safara bisu mbégte la bisu yokku la bis bu la fi safara bisu santela bisu xewlu bisu bernela xayu fi safar waaju man gëléem war naa loj gëléem bul ca def ba yéem shahru naa safar nag baa xar ba bëy lun ci am nu rey bundi dooni nay ci am nu rey bundi nay shahru naa safar xeeti fruit yéen nañ ci wut lu mad naanu yéen na mad shahruna safara loo ca def du doy bul ca def lu rëy bani rëy na doy mbir du doy safara bamba miinu moom bis bi mooy bisam wax nu toggu ñam sant fi safara bamba miinu moom Bisbi bi mooy bisam wax nu toggu ñam sant fi safara bamba mi nu moom bis bi bisam nu toggu ñam sant fi safara wax ni kok may sa mbig jimba lépp jag warna na fi safara wax ni képp kok may sa jémba lépp jàgg war na fi saafara sant leel ko cantu xol bu am lu gétti koor nañ jëfal saafara sànni bis bi xol jox ko léppi xol fas ca bég bi gëla gan fi saafara kañ la yow day lu war yaa fi fekk na xar sant nan safara kañ la yow safara day lu war bu wér yaa fi fekk na xar sant nan safara maa ngi tëj la miin jóob mi ñépp miin dellu way ba kañ ki fi safara